mbokki jullit yi bu ñu nekkoor seen xel dem ci nafila tey la fukkeelu guddi ak juróom ñaar ñu fas yéene julli fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk inna anzalnaahu fi laylatul xadr ñaar yoon ak suratul ixlaas ñaari yoon sëriñ bi nee na képp ku ko def des na ko bindal tuyaaba jukkal ni ñi njëkk xam yàlla ñépp ak ñi mujjee xam yàlla bu fekkee dafa tawat dana wér bu amoon bor yàlla dina ko ko fayal bu nekkoon ci njàqare yàlla dina ko teggil njàqare la te des na ko musal ci safara ku ci bëgg am lu la leer demal Yoor Touré solution bu Mbàkke boobu di xoratul ay ni